ci wàllum luubal gi corruption bi loolu yëpp disparité yi nga xam ne am na entre les fonctionnaires ainsi de suite ainsi de suite donc moom président Macky Sall na xam ne ne défaite bi défaitam la parce que moom mooy jiite moom moo def ay choix mooy joxe orientation moom mooy définir politique euh, dëkk bi loolu yëpp donc cette responsabilité là lui incombe il faudrait que maintenant mu xam ne ne bu mu ne kii la wala kële la na xam ne ne dafa juum ci ay yenn doxalin na réajusté wu liggéey ba pare génn ci xelam aussi waxu troisième mandat. parce que tamit lii lépp bokkoon na ci lu tax sénégalais yi wan ko ne lii munu fi nekk. parce que lu jëm ci wàllum troisième mandat ku ko fi wax d' accord naa ci ñu bala ku fa contre ñu génn la dàq la yooyu injustice yooyu mënul continuer donc na xam na ne défaite bi défaite la moom moo parier ci ñenn ñi. joué na ñàkk na na xam na ne la ko dese mooy ne liggéeyal la des ci réew mi jéem a bind turam ci taarixu histoire u Sénégal def na fi lii def na fi lële bu ko defee tranquillement en mille vingt quatre mu ut keneen koo xam te ne kii mun na ko teg pour la mouvance présidentielle mu dem jongante ak ñeneen. Mansour mal gouvernance corruption en genre yu demee noonu moo tax indice deux mille vingt et un de perception de la corruption euh, daal di wax ni Sénégal moom mi ngi ci avancé coupable ah c'est-à-dire que instant bi perdaan nañu ñaari poñ. Hmm? maanaam corruption dafay dafay gën a yokk dafa gën a yokk jéegoy njàmbaate xeex ko daa gën a gasax ah. loolu la la waa Forum Civil euh, génne démb et mu nekk lu amul benn mbetteel euh, am na yoo xam ne sax ci fond bi lay nekk mun na xaw compliqué laaj na nga décortiquer ko hmm. doonte woon lépp dëgg lay doon mais ci forme bi nii kese da gis ni lu bépp sénégalais mën a comprendre Yacine ma jox la 5000 nga dem votel ma ci lu ñëpp bokk nu mu tudd ma am sama carte ba nga dem voté nga jox ma 5000 wala 10 000 lu mu tudd. Mhm. corruption la tudd. Mhm. Euh, ma jox la Jakarta nga am liggéey te amoon naa li ma amoon mais bi élection jigéewul bugguma benn poste faalewu ma la woon loolu nan la tudd euh, sans compter nag marché yi marché yi nga xam ni ci maire yi euh, jël sa doomu ndey ngeen créer benn entreprise nga jox ko marché gouvernement bi lépp corruption la barki démb maa ngi koy wax biig yéen a ngi dégg gis ci journaux yi te kenn weddeeku ko ñu ne SNCF ñoo moom TER. Mhm. te kenn weddeeku ko ba léegi 100 cent. TER euh, ñi koy exploité du ñu ay sénégalais mais marché yooyu noonu nga xam ni dañu ko def ci suufu Sénégal di ko exploité Sénégal di lekk xaalisu Sénégal mais kan moo ci am intérêt bu fekkee Sénégal amu ci intérêt Sénégal lu dul yéeg paas wàcc amu ko ci. mais kon la moo ci xew bu mu demee noonu gis nga corruption dañu ko nandal ci suñu ay deret nëppee guñu pour mu jóge fi fii ak modèle politique bii ñuy defee fii mu ngi fi muy ŋàbbin woo xam ne bëggoo ñu xam noo ko ŋàbbee bala ma jooyee jàpp ñu naan état état lan mooy état <coughs> lu ay nit xalaat la nas ko def ko ci palang ni nañ leen jéem a dundee nii pour mën a gérer suñu société ma jox la benn exemple lée ni nit matul ci wàllu xalaat démb rek waa waa waa société civile ñu ngi koy wax ci élection yi comme Barthélémy Diaz nekk gagné maire ville ak mairo commune nekk te waajaluñu sax ci code électoral bu bees bi après buy dem ville bu Dakar kan moo ko war a remplacer. commune parce que am beneen élection. beneen koo xam dafa nekkoon tête de liste. ba ñuy démarrer campagne mu démissionné. waajaluñu woon aussi la mooy matuwaay yu ñu jël. pour wax la ne bépp loi. bu nit waajal dafay am lu ci matul sa à problème moral la ñu am boo xamante ni bi fii ak defuñu gestion inclusive nit ñuy ŋàbbee as li askan yu moom ñu ciy boolee askan bi et d'ailleurs corruption bu metti beeg ñàkk faale gi leen askan wi faale ci li ñu leen ñàkk faale ñoom ñi jiite te ñu dénk leen li ñu téye te xam ne amuñu ko woon bi leen ko askan wi joxul mais moo tax ñu sanctionné leen sanction yu métti sanction yi sax da nga ciy jàngale corruption bi nga xam ne am na ci mais askan ñu ngi commencé yow ci wàllu boobu que ngeen jox ñu xaalis dañuy lekk te du tee a def loolu <laughs> am na ku ma ne sànq mu ne ma am na benn soirée bu amoon King Fat mbooloo ba fa ñëwoon ànd ak mu ne ma mbooloo boobu la moo tax voté luñ ko mën a wax non ñu ci bëri. Eh, concert yi nag con concert yi nga xam ne dañ koy def gratuitement fay musicien bi trente millions wala hmm. vingt millions. Ah, pour mu tëgg benn deux heures de temps loolu mu tudd. corrompre euh, sentiment loolu c'était pour neexal gaa leen fekk féexal seen ay xol. moom ay leen ko ñu wax na seet ak chandise ak mille francs. doo yéexu ñu de. li ñëw ànd ak yow lekk la la parce que jàpp ne dañoo xaalisu askan bi la yor. <laughs> buñ demee ci bañ gàcce bi rek la compte. <laughs> Sénégalais dañoo mature léegi. da nga yor sa malet wàcc si dëkk bi jox leen koppar ñu jël jox leen saaku ceeb ñu jël jox leen duulin ñu jël dagg sayti si jox leen ñu jël bu demee si mbañ gàcc gi isoloir gi tànn ki leen neex loolu moom moo reflété ci élection xool bulletin bi gën a rafet rek ñu jël non ñoo xam ne xam ñu sax yow boo leen sa meeting xam ñu sax yow sa bulletin nu mu mel oh, aka moo fi bari te puis corruption boobu ngay wax euh, Yacine xam nga kañ lay mm. feeñ suñu maire yi bees yi buñ toogee buñ demee ba toog mm. mu nekk maire yi nga xam ne El Hadj Ahmed Aidara xam nga yàgg naa dénoncé na ñu yoree géejawaay caxat caxatee suuf sa yàgg na ko dénoncé mm-hmm. Ousmane Sonko kenn du ko jàngal lépp lu jëm ci wàllum utum koppar ñoom seen ak wàllum euh, euh, suuf seex yooyu yëpp gis nga maire yooyu fa nekkoon ñu si bëri tey ji bu ñu tëddee du nelaw ndax yenn ci ay dossier bu ñu ko génnaatee tegaat ko ci table ji maire yu si bëri boo xefee ndungu sin la ñuy donc coow li des na de fu mu nekk nii suñu maire yi ah, bees yi am moo tax ñu doon rey seen bopp pour toogaat ci seen mairie parce que xam nañ dossier yu nga xam ne moo ngi sa mairie ba ay problème yu dul jeex yu nga xam ne nii tey jii ñii fi toog tey jii buñ décidé génn yenn dossier tegaat ko ci table ji mais yu si bëri tey jii yaakaar naa ne euh, euh, duñ def semaine seen kër hmm? dugg si nga ñuy jëm ndax dossier yu bëri kon dinañ recevoir mooy ñu accroché wu suuf si nañu ko yoree caxat caxatee noo am na maire yoo xam ne tey buñ tëddee duñ nelaw loolu moom boo ñu ñu waajal ko sanction bi euh, yeneen ciy wax également xam nga président Macky Sall ma askan